yi ak kan mooy euh, référence bi. ah Zeynaba Aïcha Khadim nga euh, jéeg jondeel ak sama maam di sëri ci jéeg la moom jéeg la leneen ñoru la ci oui oui merci beaucoup euh, Nafi tey nag di li nga xam ne tey ji moom lañ leen indiloon mu nekk première partie bi nga xam ne moom moo nekk histoire u moom lañ leen indil euh, moom lañ leen indil deuxième partie bi waaye nag jéeri jondeer ab prince Kayor la woon moom nag ba mu matee jëlub soxna moom nag kii nga xam ne tey ji mooy Kanar Faar moom nag daal di koy jox li nga xam ne tey ji mooy nekk kado daal di koy jox deux esclaves maanaam ñaari jaam te jamono ju ne dañuy aaye li nga xam ne tey ji moom moo nekk jaam yooyu ñuy jaay waaye loolu nag euh, dafa dafa dafa firndeel ne moom jéeri jorndee la jàmbaar ndax see jamono jooju noonu euh, fulla jom fayda ngor ak euh, jom ak li nga xam ne tey ji moom moo nekk brave li nga xam ne tey ji moo nekk courage ci ci doomu aadama ñoom amoon nañ ko waaye nag eh, dañ koy jël rek tënk ko si ci ki nga xam ne tey ji moom moo nekk waajuram bi di Samba Yaaya Fall moom nag bi nga xam ne tey ji waajuram bu jigéen génnoon na àdduna fee moom mu nekk ñu tëjoon koo fee ca saint moom gouverneur da koo aaye woon pour mu dem fekkee ji li nga xam ne tey ji moom moo nekk den dëju nit ki nga xam ne moom moo nekk waajuram bu jigéen loolu ko waral mu ne moom nag dafay xaru fa la mujjee nag daal di xaru moom ñàkk bakkanam waaye moom jéeri jor ndee la eh, lépp li nga xam ne tey ji moo nekk histoire bi kii di Kanar moom nag moom moo ko ko euh, moom moo moom moo ko daal di mujjee wor d'après li xam ne tey ji moom lañ jàngatee ci histoire bi waaye nag li nga xam ne tey ji moom moo nekk Sarité Dieye gannaaw bi nga xam ne euh, tey ji moom dugg na ci euh, li nga xam mooy histoire yu Jéeri Joor Ndeela pour firndéer ne moom am na cofeel ak li nga xam ne tey ji moom moo nekk Jéeri Joor Ndeela mm-hmm. kii di kii di Kànnaar Faar bi mu yëgee ne Jéeri Joor la moom kat dañ ko bëgg a tëj pour amaan ko 15 jours kaso moom da cey jël tànkam xar ci ne loolu du am ndaxte kenn du gàcceel buuram mm-hmm. looloo waral tey ji Jéeri Louis Dior Ndella moom fa tollu toll tey euh, tey lépp ci histoire bi moom bi nga xamee ne tey ji dem na ci euh, papam kii di ndijaayam autant pour moi ca Thiès euh, di wuyoo ci kii saa sum Diop fee ca Sugeer moom ba mu demee xamal leen ñoom dañoo rey commandant moom nag dafa leen xamal ne foofu ngeen daw génn dëkk bi baa ngeen dem gànnaar ci jamono jooju foofu nga génn dëkk bi sino tubaab bi dañ lay fexeel ngir ngir rey la waaye ndijaayam bi mu xam bi mu leen xamalee loolu jëri joor ndeelaan dafa mujjee woo géwél yëpp na xamal xamale leen ne man sama samay fan lu ci des dañ koy compter dama bëgg ngeen wéyal ma tatang te ngeen taggal ma samay maam su élément bi baaxee avec la complicité de la région ñu daal di xool si bi daal di commenter mën nañu jàpp ni Dieydi Dior deewam ak xaru am na ci ay ñu seen xamxam xam ci wàllu wi nekk ay taarixkat ñoom ni ñu gisee jëfam jooju moom Dieydi Dior mooy li nasaraan si naan une légitimation de la vie d'un héros épique Dieydi Dior bi mu waxtaan ak ay way waajuram ci la jël ndogal bañ a dawati te jàmbaarloog tubaab bi xeex rek wala rek dee. le 9 avril jour fatal pour Dieydi joor ndax kii di goroom nekk itam xaritam di kànnaax Fall moo ko mujj wax ci ab embuscade la bakkanam tàggale bopp bi ak baat bi yóbbuwaale benn ci ay loxoom en guise de preuve yóbbul ko commandant si lañu jël boppi Diéry Dior ak loxoom wile samp ko ci ab bant exposé ko ci marché bu Thiès ngir dànkaafu képp ku bëgg a xeex ak ñoom mujjantal bi ñu jël cëri Diéry Dior maanaam bopp bi yóbbu ko tugal def ko seen trophée moo waral ngeen di dégg woykat bi naan jéeri joor la dañu ko boom ci dégg jànqeen bopp dem tugal li ci des dem na mbul yaama la ca des dem na yaama et eh, barbare celui qui croit à la barbarie def ak barbare nag gën yees ñëpp nasaraan si bokkoon na ci seeni mission si lu ñu wax moo doon civiliser peuple africain waaye jëf ji wone na ni jaay doole ak wor ak jëf ju ñaaw lañu fi nekkee woon. Kànnaar li ko taxoon woon xaritam bi mooy doon xaarandi am de bonne grâce auprès des colons l'arroseur arrosé Kanar Fall moom it tubaab bi war ko dal di koy tëj ñaar fukki ati ñaari at jàll mu mujj tuub nekk Amadou Kanar Fall divisé pour mieux nasaraan si tàggale ay xarit ba kenn ki wor ñu mujj ko wor moom itam am na si ñoo xam ni wax nañu ni moom Kanar Fall mujj nañu ko moom it tàggale boppam ak baatam Sarita Dieye nekk xarite dëgg Diéry joor moom dañu ko mujj exilé fële ca Guyane Bokar Kilaas moom mujjewuñ ko toppee dara ci tënk lii mooy jaar-jaari Diéry joor Ndella Fall tous les jours d'une mooy Diéry Aïcha Xaadim euh, dafa mel ni euh, nee nañ moo rayoon gouverneur Thiès bi bopp bi dem tugal la ca des dem na Molière la ca des dem lu waral loolu nag mu kii di sari ca jëy moom gannaaw bi nga xam ne tey ji dégg na buuram ñu ne dañ koy tëj moom si la ne loolu am nuk du ci dal mhm. day dem xeex ak li nga xam ne tey ji moom moo nekk tubaab bi si la daal di duut paaka ki nga xam ne tey ji moom moo nekk tubaab bi dem jam ko si la ko rayee nag looloo indi na ñu ne jéeri jool rey na euh, tubaab bi mhm. alors que ki nga xam ne tey ji moom moo nekk sari ci jëy moom moo dem daal di li xam ne dindi tuuma dem rey ki nga xam ne tey ji moom moo nekk tubaab bi waaye nag ki nga xam ne tey ji moom moo nekk Kanar euh, Fall moom nag euh, daal di moom nag dafa wor jéeri joor mhm. ndaxte dafa war man da ko war ci ay kaddu moom moo mujjee dem ki nga xam ne tey moom ma nekk jéeri joor dem dem ray ko tàgg tàggale bopp ak baat bi yóbbaale benn benn ci ay loxoom en guise pour won ko tubaab bi ko rey naa jéeri joor looloo waral nag xam nga lan moo waraloon li ki nga xam ne moo ma nekk euh, kànnaar faal reyum jéeri joor boobu noonu ngir am li nga xam ne tey moo nekk ndomba tànk bu baax ci tubaab bi waaye mooy tubaab bi tamit saay saay ba ba mujjee ko wooraat moom it kii nga xam moo tax euh, saa su nekk dañ loolu histoire bi daf ñuy jàngal ne woor baaxul mm-hmm. ki nga xam ne tey da ànd ak moom ci mu nekk sëy baax xaalis amitié ba lépp daf man da nga war a dem en fidélité ba mu jeex tàkk ndax te jii kii di euh, kii di Kànnar Faat moom dafa woon dafa naroon woor ki nga xam te mu mën a jiir joor far tubaab bi mujjee ko woor te yàlla li mu doon dogal te te yàlla suñu borom li mu dogal mooy moom li mu bëggoon sax mujj ko woon am kii di eh, kii di Sarité moom moo daal di ray ki nga xam ne tey ji moom moo ne commandant bi ngir daal di eh, eh, bàkk buuram ngir daal di li nga xamante ni dindi tuuma ci laa ci ci histoire boobu noonu di jéeri joor ndeer bu Samba Yaaya Fall loolu laa leen indiloon tey dans vivre sa passion sur su ko defee vendredi ñu daal leen indil keneen ci kàttanu yàlla mm, mm. ayca am na solo lool xaadim euh, parce que nag dafay baax ñuy fàttali euh, ñi ñuy seetaan surtout tout tànk yi nga xamante ni xëy na ñoom amuñu une parfaite de l'histoire naka la suñu maam yi doon dundee ak euh, par le biais de seen jàmbaar de seen euh, ay rappeler à chaque fois parce que li ñu wax ne di déclarer histoire day tax ñu di rafraîchir suñu mémoire di mm-hmm. mun di enrichir suñu ay euh, communication suñuy waxtaan ak jaboot bi mm-hmm. ak xarit yi ndaxte connaissance moom soo ko amee day tax fooy toog rek di waxtaan dañuy xam ne yow dana enraciné wu bu baax a mm-hmm. baax euh, dana xam lu xew loolu ñëpp ko ñëpp la war donc vraiment merci pour ta rubrique Aïcha am na solo mën nañu euh,